première circulation c'est ferroviaire diggante euh, Diourbel Njaareem euh, ak fii nii Mbacké xam fan yii si gannaaw euh, jotoon nañ dawal saxaar bi si diggante Pout jàll Thiès yegg si ba Diourbel tey même bu dee train de travaux la mais dawalaat nañ saxaar bi indi ko ba fii si Mbacké donc loolu dañ si sant yàlla. parce que euh, ñun waa chemin de fer ñëwoon nañ fii dem seeti euh, suñu sëriñ sëñ Muntaxa mu ñaanal ñu euh, nañu nañu def le maximum parce que moom itam loolu lu mu sàkku la donc boobu ba léegi ñaanam bi dafa mel ne mi ngi waaj a nangu parce que si diggante bi travaux yi gaaw na gaawaay bi nga xamante ni man mii sax dafa ma jaaxal fu mu toll nii au bout de quelques semaines yegg si nañ ba fii nii si Mbàkke ñu yaakaar ni fii ak màggal bi di yegg si incha allah Euh, six kilomètres yu ñu séparé fii ak Touba dinañ ko dinañ ko mën a réhabilité donc euh, loolu loolu loolu moo doon suñu suñu tànk ñu kontaan nag fii nii ànd ak fii suñu ay suñu sœur honorable député bu Touba mu ñëw accompagner ñu ñëw teeruñu fii nii si tu si Touba ñu ko si gërëm bu baax a baax waaw boo gisee tey ñu ñëw fii ak euh, engin travaux bii nii ñu koy woowee boureuse moom day mesurer lu ñu naan géométrie ak devers de voie ak géométrie devers ak nivellement lu ñu naan nivellement transversal et longitudinal loolu moo ñuy permettre ñu xam ndax voie bi fu mu toll nii euh, yëmb na donc yooyu noonu itam résultat enregistrement bu ñu def tey bi nii dañ koy envoyé euh, suñu benn bureau d'étude technique bi nga xamante ni mi ngi Paris ñoom itam ñu def analyse bi renvoyé ñu ñu corrigé yu ñu war a corrigé comme ça loolu itam saa daf ñuy permettre ñu am certitude que ni dinañ mën a circuler dans de très bonnes conditions fii ak euh, fii si maggal bi yegg see mais en tout cas man mii sama bopp bëggoon naa vérifier personnellement moo taxoon tey première circulation bi j'avais tenu ma ñëw yegg si kaw boureuse bi xool mais franchement sama xel dal na. ba ma yegg see fii si Mbàkke itam euh, gis travaux yi nu mu avancé euh, lu si fan bu gàtt dindi nañ toiture bi yëpp commencé remplacer tuiles yi yéen a ko gisal seen bopp. Euh, ouvrier yaa ngi fii ñi ngi def travaux yi convenablement en tout cas suñu xel dal na te gëm naa ni ñaan bu ñu ñaanaloon dafa mel na moom mooy mooy feeñ nii nii donc mu ngi noonu. waaw loolu moom conteneur yi moom parce que conteneur moo gën a yomb boo commencé jël ay passager di leen si def loolu dafa am li nga xamante ni da am ay visa de sécurité yi nga xam ne da nga koy soxla donc yooyu noonu ñu ngi si xar suñu tànk tubéy incha allah te bés bu loolu yembee rek bu boobaa euh, opérateur exploitation yi ñi nga xamante ni ñu ngi mel na ay GTS ak yooyu ñooñu la ñuy waxtaanal. pour xool maintenant na la ñu mën a am na ay réunion yu ñu prévoir fu mu toll ni semaine prochaine incha allah bu ñu waxtaanee ak ñoom ñu xool léegi nan la ñuy def pour mën a exploiter en tout cas ñun lu ñu war a def euh, au niveau des rails ñu ngi koy def convenablement. waaw waaw coût bi coût projet bi euh, fukki milliards ak juróom-ñett la woon bon xam naa dina évoluer tuuti nag quand parce que dañoo am ay travaux supplémentaires ay zones yu ñu vandaliser yi nga xam ne dañ ko gisaat affaire yooyu mais ça va pas ça va pas ça va très haut quoi si si am nañ yàqin ni euh, bu yegg vingt milliards itam euh, du ko du ko bu koy passé sax du ko passé lu bari waaw ah en tout cas euh, ñun président de la république moom xam nañ bëgg-bëgg bu mu am si saxaar muy suñu président Macky Sall gis ngeen ko nu mu ko defee fële si Ndakaaru si TER bi fu mu toll nii y a un projet vaste bu nekk si plan Sénégal émergent bi nga xamante ni bëgg nañ saxaar bi dawaat fépp ci Sénégal ñun nag ci loolu lañ nekk. loolu moo indi projet bii nii euh, jógee Ndakaaru euh, dem ba Tambacounda euh, président Macky Sall dénk ko suñu ministre suñu kilifa muy Mansour Faye mu koy doxal di suivre projet bi nag tous les jours chaque fois il se renseigne pour xool affaire yi fu mu nekk donc daal lu ñu naan état moom fu mu toll nii taxaw na temb. pour que saxaar bi mën a dawaat ci dëkk yëpp Sénégal donc yii ay projets yu ñu commencé la mais à moyen et long terme il y aura d' qui vont arriver incha allah te ñu ngi si tànk boobu ñu ngi ciy xaar suñu tànk tubéy. maa ngi leen di gërëm